رمضان ده حياتي شمعة على مماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته نونغي ماغال الله سبحانه وتعالى ديكو غرم ديكو باك دي ñaan borom bi jéggal ñu suñuy njuumte nangul ñu lépp lu ñu ko jaamu noo ngi ñaan yàlla weeru koor wi di ñëw yàlla nañu ko fekkee te jaamu ci yàlla lu mu ñu nangul yàlla nañu yàlla boole ci ñi muy jéggal ci weeru koor gi ñun ak sunuy way dawlu bépp jullit bu génn àdduna yal na yàlla jéggal ko bépp jullit bu faatu yal na yàlla yërëm ko bépp jullit bu faatu yal na yàlla xaare ko ajjana lu yomb yàlla la yal nañ ko yàlla defal ñun ñi ciy fas yéene woor it yal nañu yàlla nangul lépp luñ ci woor yàlla ubbil ñu abwaabul xayr ubbil ñu ay buntu xéewal ñu mun koo woor ci dal jaamu ci yàlla ci dal kii na génne tànkam foofu mu gën waaw jaamu ci yàlla ci dal su loolu amee rek li ñuy ut dana fekk yàlla defal nañu ko taala wa tabaarak min asraari ramadan al mubaarak tey loolu la ñuy waxtaanee muy ay secret yi weeru koor walla lenn ci ay secret ci biir weeru koor la shakka ni weeru koor mi ngi ñëw incha allah dimanche dinañ ko séentu kon laazim la ci képp kuy jullit nga séentu weer wi dimanche ndax séentu bi jaamu yàlla la soo gisee xayrum soo gisul def nga li la war mbokk yi weeru koor weer la wuy ñëw ak mu nekk benn yoon weeru koor ayaamun maadudaat la ay fan la rekk yu ñuy lim moom weeru koor ayaaman maadudaat ay fan yu ñuy lim bariwul waxuñu la ay weer waxuñu ay at laakin dañu la wax ne ay fan la yu limu weeru koor mbokk yi ay occasion la yu bari pour jullit bi defaru ci waxoon naa ni weeru koor centre formation la ci jullit bi bëgg dem àjjana ëllëg jullit bi bëgg defaru jullit bi bëgg a rëccu waaye jullit bi bëgga nekk exemple ci àdduna bi kon ay furas xaat la kon ay occasion la yoo xam ni nit ki mën na caa jaar defaru ay fan yu néew nag bu ñu ko waxee ay waxtu lay tekki te xam ngeen ni waxtu moom mooy ras maalil insaan nit moom ci ay waxtoom lay seeree ci lay sakkanee kenn ku nekk ni nga planifier say waxtu ci ngay mëna a bu fekkee bëgg nga yiwal àdduna ak alaaxira yal nañ ko yiwu àdduna ak alaaxira jullit bu ko bëgg bu yaboo nga teg noflaay sa côté sànni ko xam ni àdduna du bërëbu noppalukaay ndax borom bi ne wa laqad xalaqna al insana fii kabad borom bi ne daa bind nit ci coono yow mi bëgg nag sa adduna defaru nga bëgg sa allaaxira defaru kon boo fi nekkee yaa war a gën sonn gis nga noonu yàlla bi ni mu comprendre adduna ba noppalu yow yaa ko war a gën sonn ndax yow danga ngaa war a comprendre àdduna comprendre allaaxira liggéeyal àdduna ngir sa allaaxira liggéeyal allaaxira ngir sa àdduna baax moo tax ku bëgg àjjana jëlal fo ak caaxaan sànnil ndax kat waxtu occasion la boo xam ni mooy dundu jullit màgg gu mu màgg ak euh, rëy bu mu rëy tax na borom bi aaya yu bari mu wàtti ci ay waxtu du benn aaya du ñaari aaya borom bi waat ci waxtu kon day tegtal jullit bi ne ko waxtu lu am solo la ci sa dund borom bi ne wal layli ida yaxsha muy guddi su lëndëmee guddi waxtu la lu tax borom bi giñ ci dafa am ay secret yu bari yu ci nekk borom bi ne wa duha giñ ci yoor yoor wal asr giñ ci tàkkusaan kon su borom bi giñee ci ay waxtu yow jullit bi war ngaa xam ni waxtu du caaxaan kon say heure yépp danga nga koo war a planifier ci li neex yàlla jullit noonu lay doxe bis boo planifier say waxtu ci li neex yàlla ñi noonoo yàlla weg la ñi noonoo yàlla respecté la waaye ñi noonoo yàlla ragal la kon weeru koor su jotee jullit ñépp a waroon a jóg woor ko ndax ñoom ñoo ni ay jullit lañ su dul ku am ngànt bu fës muy feebar walla tukki feebar walla tukki su dee jigéen mu ne ci ngàntam su yii amul rekk ku majeur war na ci yow nga woor waaye it war na nga jàng koor ndax weeru koor université la boo xam ni benn professeur la am muy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ñu bëri ñiy woor ñàkk a jàng koor tax na seen ak koor di xajam te duñu ko mën a defar kon bokk na ci secret koor nga jóg yow jullit bi laaj ana nan la yonent bi doon wooree naka la sahabatul kiram doon woore nga jéem a jël yow sa dund ak ko ci dundiinam ci weeru koor soo ko defee rekk danga nga yëg ni weeru koor dootoo ñaan mu gaaw a jeex moo tax sahabatul kiram daan ñaan weeru koor di gaaw a ñëw ndax dañu doon yëg <coughs> defaru fës ci li feeñ ak li nëbbu dañu doon yëg noflaay ci weeru koor moo tax koor daana dem ñu bari ci ñoom topp koor gi di ko gunge ba nar caa woor lu bari <coughs> kon weeru koor li ci ne ci ay secret la tuaddu wala tuxsa mbokk yi ramadan chahrul farax weeru koor weeru mbégte la waaye nekkul weeru naqar comme ni ko sénégalais yu bari di déggee walla ci télé yi kon ñoom dañ daan dund weeru koor ñun nag dañu koy dund ci metitlu ñu bëri ci nit ñi da dégg ñu naan ay waay weeru koor de ñëw na jàpp ni weeru koor kaso la jàpp ni weeru koor mbugal la tax ñu bari <clears throat> ci ñoom di porter malade ci jigéen ñi ak góor ñi nga xamante ni seen ngëm dafa feebar ulcère tàmbalee génn estomac tàmbalee génn gastrique tàmbalee génn kenn ku nekk uti feebar ngir bañ am ci ñoo xam ni àgg nañ ci foo xam ni jaral na leen sax ñu génn Sénégal dem ci ay dëkku tubaab def fa seen congé ngir bañ a waaye am na it ñu gëm ñoo xam ni jaral na leen ñu génn dem Makka woore fa moo tax mbon moom day tasaaroo waaye mbaaxit dana am weeru koor ñi ko jàppee naqar ñoo ciy jënd feebar mais ku xamoon weeru koor li muy jëriñ boo feebaree da nga cee war a sant ndax dana la dimbale ci lu bari sa kanam dafa war a bég dafa war a leer danga war a am bahja ak suruur lan mooy bahja ak suruur ngir ñëwuk tuyaaba ngir ñëwuk occasion boo xam ni borom bi moo la koy defal kon loolu jullit bu ko xam da nga ciy sawar ndax da ngay yëg ni ci ngay amee chance ci sa dund fii ci àdduna ak sa dund ci àllaaxira moo tax borom bi ne qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fa bi dalika falyafraxu huwa xayrun mimma yajmaun ngëneelal yàlla ak yërmandeem jullit bi la cee war a kontaan te xam ngeen ni weeru koor ngëneelu yàlla la weeru koor yërmande yàlla la kon fa bi zalika falyafraxu waay waay kontaan leen ci ñëw weeru ko mbokk yi ak fukki weer la ak ñaar fukki yépp nga di ko lekk di dàqe di daw benn weer ñëw borom bi ne la wooral defaru ci nga jële ko naqar kon yow xamoo lan mooy ñëw weeru koor kon weeru koor la ci aji woor ji moo tax ñëw la ci xadiisul muttafaq alayhi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne li sooimi farxataan farxatun inda fitrih wa farxatun inda nee na woorkat bi am na ñaari mbégte kii woor day am ñaari mbégte su nit ki wooree ba tàkkusaan jant bi tàmbalee wàcc buy dog day kontaan moo tax foofu borom bi ubbi ko def ko buntu ñaan danga war a jóge ci koor gi dagg koor gi yokk koor gi ak jéggalu yàlla yokk koor gi ak yërmande yàlla jokk koor gi ak ajjana moo tax ñu ne la boo wooree ba ndogu di jot waxal kàddu yi muy zahaba zama'u wa butallati al uruq wa sabata al ajru insha allah loolu lii lu yonent bi jàngale sallallahu sallam mooy ah, mar mi de dem na xam ngeen ni koor mar moo ci sonal nit waaye du lekk kon zahaba zama dogu nga naan nga ndox walla lekk nga tàndarma cër yi veni yi siddit yi boli gi ni mu woowee woon bi nga wooree làmmiñ bi wow tuñ yi wow yaram bi dee nga ni wabtallatil uruq fi mu ne cër yëpp tooy na ndax soxla woon nañ ko ba pare nag nga saxal ni wa sabatal ajru insha allah li ma ci doon ut yàlla saxal na ko mooy fay yàlla nañ ko yàlla defal kon baat boobu ngay wax muy baatu ngëm yàlla googu dangaa dagg koor gi mais jokkaat nga beneen koor muy ban koor mooy jokkat nga yërmande yàlla jokk ngay tuyaabay borom bi jokk ngay sax ni yow ab jullit nga kon yow def nga la la war kon ci biir koor gi yaa ngi ci jaamu yàlla bi ngay dogit yaa ngi dogoo jaamu yàlla kon yow jullit sa lépp jaamu yàlla la yow jullit amoo lenn luy pert lépp loo nekk rekk da jële ci yiw yokkal la yiw waaye du la jëlee ci yiw xañ la leneen lépp loo nekk yow jullit kon foofu mbégte bi ngay am boo dogoo xool sa njaboot xoola kër gi dal bi ñépp yi dal sa xol ni muy seddee en tant ab jullit bu exécuté lu la yàlla waxoon ndax ci weer wi nuru nga ci malaaka lan nga ci nuru malaaka mooy malaaka yi du ñu lekk duñu naan waaw laa yaakuluun wala yashrabuun nga góorlu ba fajaru koor nga tàmbale ko ba timis lekkoo naanoo commencé nga jël seeni daraja waay waay fexeel nag fexeel ba koor gi boo ci formé woo dootoo moy nga bokk ci wala yaasuuna ma amarahum wala boo mooyee nga tuub ndax jullit noonu la nekkee baynal xawf war rajaa kon fexe cee defaru ba làmmiñ bi yar ko yar ba mu bàyyi ñaaw wax yar ko ba mu bàyyi ñaaw kàddu xel mi yar ko ba mu bàyyi njortu lu ñaaw surtout ci sa moroomu jullit présider wala juger loo xamante ni gisuloo ko loolu mooy njort ba baada zan ism kon raxasal say idée ak say xalaat ak say yaakaar ci sa moroomu jullit yëgal ni kii loo def waru koo def du ko def waaye nga yar say bët ci xool lu ñu la tere nga xool lépp lu borom bi tere xikam yi ci nekk kenn mënu koo jeexal lépp lu borom bi tere rek boo ko toogatee jàngat ko dinga xam ni bàyyi gi moo gën jëf gi lépp nag ba mu jeex làmmiñ bi nga yar ko ci jàng alquran ci tudd borom bi waaye moytu wax ju ñaaw nopp yi la même chose nga yar leen ci moytu déglu lu bon tànk yi loxo yi noonu kon weeru koor weeru defaru la defaru la nga fekk nag sénégalais yu bëri ak seeni programme da ngay fekk ni presque hypocrisie la ñuy doxal tey xool leen programme télé yépp commencé nañu tuubal télé yi ak rajo yi temps yëpp bu ngeen xoolee tele ak rajo yi léegi lu ñuy wax na xawma ma nu ñu koy tuddee caaxaankat yooyu animateur yeeg yooyu nañu noppalu indi ustaas yi loolu loolu ngeen di dégg ñuy wax kon ndeke sénégalais lu mu def moo ko tey moo tax doo am lay ci kanamu yàlla onze mois nga bàyyi nit muy tëgg di fecc di wax lu ñaaw di wax lu bon ñu tuddee ko humour di déglu musique di def lu ne weeru koor jot nga ne noo yéen noppalu leen dem jëli benn ustaas mu ñëw naan qaala laaw qaala rasuluhu léegi onze mois yi nga yàq yëpp nga bëgg koo rattrapé ci benn weer kon jullit bi war naa xam ni yàlla binduñu ngir caaxaan afa xasibtum annama xalaqnaakum abasa wa annakum ilayna la turjaun borom ne da ngeen a foog ñi dama leen bind pour fo théâtre kat bi théâtre fokat bi fo musicien bi fo humoriste bi fo ku nekk di def li la neex ngeen foog ni loolu moo tax ma bind leen ah fa taala allah yàlla ne jomb na loolu fa taala allahu almaliku alxaq la ilaha illa huwa karim kon weeru koor weeru bégte la su fekkee nag danga am xol bu feebar bay seetaan caaxaan yi ci sénégalais yi def ci ay théâtre ak yooyu sa xol day gën a feebar dañu lay gën a bañ loo koor amul benn théâtre ci sketch yi ñu teg ci weeru koor buy xiir nit ci bëgg woor dafa mel ni franc yu ñëw leen financé wala dafa am ay lobby yu nekk ci seen ginnaaw wallahi istihza bi diin rek lañuy def weeru koor wi ñëw suñu njaboot ñu waroon leen a miinal koor nga seen benn magu théâtre kat muy woor di di li làqatu di dog ñu koy wane muy woor di jooy di xëm ñu koy wane ñuy muy woor daal jëf bu ñaaw bu ne mu def ko pour xale bii ci suuf di ko reetaan ndax ëllëg mu bañ a woor loolu rek mooy objectif bi nekkul leneen nekkul pour reetaan loola de mais dañoo am mission parce que li ñu leen ciy fay tollul foofu dañoo am mission pour yàq nit ñi Europe ak ñu mel ni ñoom ñoo nekk ci ginnaaw parce que xale bi bu seetaanee benn théâtre bu nekk mag sol yére yi paa ah dem ba ci biir restaurant di lekk di làqatu moo ki xaritam ba pare génn fompasatu ñëw ci kër gi naan dangaa woor mooy xale bi fexeel nga roy ma ëllëg te lépp lu waay jàngal nit man sanna fil islaami sunnatan sayyi'a fa lahu ajruha képp ku sos lu bon ci lislaam ba détourné ci ay nit borom bi nee na dana la ko fay ba matt du wàññi ki ña nga yàq dara kon yow jullit bi waroon nga rus rus di jouer ay sketch di fowee diine yi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di fowee diine yi islaam di fowee weeru koor ni mu màggee tubaab yi sax ñoo gën a bon mais bu weeru koor jotee dañ koy jox respect kon mbokk yi weeru koor nekkul weeru bu ñuy am naqar mais mbégte lay doon ñaareel mooy ramadan shahru siha weeru koor weeru wirgi yaram la kon il ne faut nit ñi moytu di ci feebar walla di ci feebar feebarlu jigéen ñi doom yi góor ñi ñépp moytu ci loolu daaw jéeg la ma benn nit nettali magam ñaari jigéen lañ mu ne oustaz diw ba ma ko xamee ba léegi weeru koor du ko wax lan moo tax mu ne bu weeru koor jotee rek moom daal day déclaré ne day indisposé loolu lay déclaré ci kër gi di fo di caaxaan noonu la nekkee mais tey xool leen fi ko yàlla indi borom bi lu waaye di def defal lu la neex mais bul xam lu mu lay faye foofu la ndaw si jaar ba léegi deretam taxawatul te musu ko dal moom moo toog ak rakkam bu mbokkal ndey ak bàyyi rakkam raconté ma istuwaar bi ci sama place ne moom musu koo woor bu jotoon rek day déclaré ne am papam day wax ba sonn mu ne ko man weeru koor buy jege sama deret dootul taxaw noonu mu ko waxee ci la ko yàlla fekk waliyaatu billah ñaata ci kër gi ngay fekk jànq yoo xam ne weeru koor du ñu woor lan la ñuy layee damay indisposé lan la ñuy layee dama nàngam ñaata ngay gis ñu jënd feebar di ko kafe far mu nekk dëgg man dama am man mënuma woor man nangam yaa ngi wax loo xam ni te xam ngeen ni làmmiñ al balaa muwakkalun bil mantiqa balaa dafa togg ci catu làmmiñ booy wax waxal lu am solo waxal lu baax mais moytul jënd musiba ngir teg ko sa kaw loolu baaxut kon mbokk yi weeru koor weeru wér la li ci ne ci ay jàngat laa tuaddu wala tuxsa kenn mënu koo lim mbokk yi lan moo tax ñu ne weeru koor wiir la bu ñu jëlee ñetti facteur dinañ xam ni weeru koor weeru wér la mooy bi ci njëkk mooy nit ki day am i'tidaal fi mataamihi wa mashrabi li nga doon lekk ak li ngay naan day équilibré su weeru koor ñëwee parce que imagine budul weeru koor ñaata yoon ngay lekk ci bëccëg bi kenn xamul nu mu toll di nga ndékki di nga añ yeneen yi ngay jënd kenn xamul nu mu toll sa gémmiñ du noppalu sa bëñ du noppalu pancréas bi la même chose biir bi butit yi dara du am jàmm mais bu weeru koor jotee fajar weeru koor nga ñàkk lekk ñàkk naan ba timis ñaata waxtu la presque six heures de temps nga toog lekkoo dina la may yaram bi di reesal reesal bu normal parce que sa biir nga xamante ni matière gastralgique bi nekk ci sa biir nga xamante ni am na liggéey bu biir bi doon def loo lekk dafa war a rees nga doog a lekk leneen amoo woon temps bi ci onze mois yi mais un mois bi am nga ko fi léegi ndax bi nga xëddee lekk naan boo seetloo dangay oyof da ngay oyof tooy boo seetloo da ngay souple boo seetloo da ngay am équilibre boo seetloo da ngay sawar lan moo tax mooy diisaay bi nekkoon ci biir bi deñ na su biir bi oyofee rek xel mi xalaat yàlla subhanahu wa beneen bi facteur bi bokku na ci xel mi ci boppam day am équilibre lan moo tax parce que dafa am lu ànd ak koor boo dee xale bu góor ngeen baal ma xale bu góor boo xam ne comme sikket jigéen di mu gis xel mi ne ci moom bët yi du am jàmm xel mi du am jàmm xol bi du am jàmm fu mu toll mi ngi xool xale yu jigéen ñi ni ñuy doxee ni ñuy mel bu weeru koor ñëwee loolu day feebar ci moom lan moo tax fa alayhi bi sawm fa inna lahu wija gis nga bi nga wooree boo xiifee sa cër day néew kàttan su néewee kàttan xel mi la même chose dootoo xalaat ay mbiru jigéen ak yooyu kon dèjà sa bët tàmbale na am wér-gi-yaram nopp yi tàmbalee am wér-gi-yaram xel mi tàmbalee am wér yaram biir bi la même chose beneen bi weeru koor dana yombal sa mbàq ba lekk bi ci doon dugg léegi dana am temps bu mu toog ba rees doog a dem su reesee lii jëm ci dret bi lii ci ndox mi lii fu baax lii jëm feneen beneen bi dina dimbale poumon yi ñu mën a liggéey di tëju di tijji ci wàllu noy yi nga am jàmm waaye beneen bi mbokk yi xam ngeen ni weeru koor day dimbale nit ci régime day day dimbale ci régime borom poids yi nga xamante ni dañ doon diis fu ñu toll da gis koo xam ne day diis ba jàpp ne seytaane ko jàpp wala leneen fekk ni muy teglee lekk te du rees moo koy jàpp loolu dana ci mucc kon dana dem ba yaramam tàmbalee rës bu dee ku am yaram yaramam day rës bu dee ku amoon biir biiram dafay rës bu dee ku amoon xol buy metti xol bu mettem dafay wàññiku ci weeru koor bu dee ku amoon estomac la même chose kon mbokk yi weeru koor dafa ñëw ci beneen buntu secret yi la may wér-gi-yarameewu nit dafa ñëw pour may la wér-gi-yaram bokk na ci secret yu weeru koor ramadan shahru tawba bokk na ci ay secret weeru koor ndeke weeru koor weeru tuub la lan mooy tuub mooy jéggalu borom bi te ñun ñëpp dañu ko soxla kullu naasawu xata ñun ñëpp ay juumkat lañ ñun ñëpp ay ñun ñëpp tooñ su weeru koor ñëwee chance la forte chance pour ñu jéggalu yàlla pour ñu tuub ndax suñuy bàkkaar dafa bëri guddi ak bëccëg mbokk yi weeru koor ay buntam day ubbeeku muy bunti àjjana su buntu àjjana ubbeeku muy bunti tuub yonent bi sallallahu alayhi nee na bu weeru koor ñëwee dañuy tënk seytaane ba pare tëj ay buntu safara ubbi ay buntu àjjana am na riwaaye boo xam ne ubbi ay buntu asamante te fa la di jaar mbokk yi kon weeru koor weeru jullit bi bëgg tuub la borom bi ne wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an yatiyakum al adabu summa la tunsaruun waay waay wëlbatiku leen jëm ci seen borom jébbalu leen wa aslimu la wëlbatiku leen jëm ci seen borom te jébbalu lan mooy jébbal jébbal mooy sa yaram sa jëmm sa xel sa xalaat lépp nga jox ko borom bi te xam ne yow doo dara loolu mooy jébbalu am na borom xam-xam yu koy firee mooy jël weñ lonk ko ci sa bakkan takk ci buum jox borom bi loolu mooy jébbalu su loolu amee na lu muy tekki mooy qul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin ñenti mbir yi ëpp solo ci sa dund yàllaa ko moom bàyyee ko ko muy julli kon julli gi dee ko defal yàlla bu ko def ngir nit ñi bu ko def ngir nit ki waaye defal ko yàlla rendi te ñu bari ci ñun dañoo jàpp ne rendi fola te rendi ibaada la ndax jël bakkan jëlee ko ci dund yóbbu ko ci dee su la ci yàlla joxee ndigal jaamu la mais bu dul woon loolu amoo droit nga di ko def loolu moo tax borom bi am yu mu daganal nga def ko am yu mu araamal nga def ko yi mu daganal nga def ko boo ci def ci nañ la ko santee jaamu yàlla la boo téewoon sa paaka tiim sa xaru ngénte wala sa xaru tabaski teg paaka bi di ren di dañ lay bindal tuyaaba geste bi ngay def booy fees booy séddale lépp tuyaaba ngay am imagineel boo jëloon sa paaka di ko rey mbaam xuux looy am wala nga jël sa paaka àgg ci mbon foo xamante ne kenn xamul nu di jël ay mbaam mbaam sëf di ko rey di ko jox ay jullit ñu koy lekk kooku si sabotage wallahi mbokk yi bu yaboo ngeen yëg ni Sénégal tey àgg na foo xam ne xaw ci àdduna bi ku fa àgg ci mbon ngeen baal ma ci waxin bi du ñëpp nag mais àgg nañ léegi ci suufee foo xam ne xaw benn xeet bu ci àgg société boo xam ne dañuy dem di fowee diine ñan ñoo leen ko may parce que kilifa diine yi ñoo leen ko may ngeen baal may une deuxième fois kilifa diine yi ñoom ñoo may nit ñi lii ñu nekkee parce que ñoo teggi ndigalal yàlla ci ñoom indi seeni i ndigalu bopp ñoo teggi waxu yàlla ci ñoom indi seen i wax ñoo soofal li yàlla digle indi seen i mbir loolu moo tax nit ñi di fawee diine nit ki bu demee ba gëm ni am na ku koy téye comme laxasu caaf di ko dugal àjjana kooku yàq nañ ko yàq boo xam ne lu ne sañ na koo def lu ne dootul arrière dootul ragal dootul tiit dangay wax mu ne la diw laa yaakaar diw li mu amul bugguma ko àgg ci mbon foo xam ne seytaane sax musu koo wax iblis musul wax kàddu gi musul wax lu mel noonu iblis li muy doy waar doy waar yaakaar na àjjana ba di ko ñaan borom bi li muy doy waar waar buy wax ak borom bi lu muy wax fa bi izzatik fa bi izzatika la iblis di wax yow nga bon ba àgg foo xam ne mu su koo def nga ni yàlla bëgg lu ma la dara li sëriñ diwut bëgg laa bëgg mais tëñ bi iblis da lay ree billaahi iblis da lay ree parce que moo la gën parce que àgg nga ci suufe boo xamante ni iblis ñemewul def loolu kon mbokk yi bu ñu àggee foofu nag bu lu ne mën nañ ko lekk di jël ay mbaam di ko jox nit ñi di jël ay fas li gën a reelu maa ngi dégg benn waay mu ne mën daal affaire bu léegi dafa ma jaaxal wax ji am na lu ma ci raw am na lu ma ci dégg bi ma ñëwee laaj sama waa kër ñu ne nee na nangam ñu ne am na benn débat bu ñu defoon benn waay mu ne dafa laaj ustaasam mu ne ko mbaam araamul ndax alxuraan waxu ko mbaam sëf dama agsi dégg ci alxuraan waxu ko mu ne waa lan la mu ne nee mbaam araamul alxuraan waxu ko mu ne ko kii lu muy wax nii nii comme tardé naa ci jéem naa toppaat débat boobu. pour amaat ci argument yu leer mën cee wax mais malheureusement mais li ma ci am comme résumé lañ ma wax bu fekkee loolu la wax moo tax kuy déglu àtte bi déglu dama ne bu fekkee li ñu wax loolu la wax bu fekkee dafa ne alxuraan newul mbaam xaraam na kon xamul diine te ñu bari ci nit ñi xamuñu diine mbokk yi mbaam mbaam kuy xool araamam ci alxuraan doo dajeek moom mooy mbaam sëf mooy ximaarul ahli ku koy xool ci alquran xamoo xamoo xamoo diine mbaam bi alquran tere mooy mbaam xuux mooy xinziir xinziir xam nañu xaraama laakin mbaam suuf kañ la xaraam ci xaybar la xaraame ala lisaani rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bi jullit ñi demee xaybar xam ngeen ne xaybar dañu koo tëjoon kenn mënta dugg ay fan ñu ne fa dem ba yóbbal bi ñu yóbbu woon jeex gaa yi tàmbalee jël mbaam yi di rey di lekk te mbaam yee doon yenu bagage yi am ko ñëw ni yonent bi mbaam yaa ngi jeex de yonent bi keroog la taxaw ne bés ni ki tey araamal naa mbaam sëf ak sëyu yóbbal muy ziwaaju mutaa ñoom ñaar ci même heure même waxtu la ko yonent bi araamal araamal naa bés ni tey mbaam sëf ak sëyu yóbbal mbokk yi waaw lu yonent bi araamal du lu yàlla araamal ndax yonent bi day wax ci bànneexu bakkanam laa yantiqu anil hawa lu mu ci teg wa ma aataakum rasula wa ma nahakum anhu mais subhanallah te li gëna a dangereux mooy lépp lu ñu araamal scientifiquement boo demee gis ci musiba tey kuy lekk yàpp mbaam ko te nga ñi yàpp mbaam sa fi demal jël say microscope nga xool ñaata moo ci nekk ci ay variété yi nga xamante ni yooyu yëpp boo seetloo presque ay micro yu yu dangereux kenn xamul lu mu toll kenn xamul kon mbokk yi ñu ngóog tuub borom bi nee na tuub leen wa huwa alladi yaqbalu tawbata an ibadihi wa yafu an alsayiat wa yaalam ma tafaluun borom bi ne tuub leen mooy nangu tuub de ñu ne ko ah mu mooy nangul jaamam yi tuub moo leen di jéggal seeni njuumte <laughs> xam na li ngeen di def de loolu moo ci gën a tiitlu ci aaya bi wa yaalam ma tafaaluun borom subhanahu wa taala nee na yonent bi waxal sama jaam ñi qul ya ibadiya alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yagfiru dunuba jamia innahu huwa algafuru rahim abdullah ibni masud buñ ko laajee ban aaya moo gën a neex ci alquran ban aaya moo ëpp yaakaar aaya bii la waxoon aaya bii la ni aaya bii daal dëgg dëgg dëgg mooy aaya bi nga xamante ni dëppoo nañ ci alquran ndax li na ci aaya bi ci kéemaan daa bëri qul yaa ibadiya alladina asrafu ala anfusihim yow yonent bi mu ne naa mu ne ko waxal sama jaam ñi nga xamante ni jiital nañu ay mbir yu ñaaw ba def njuumte ne leen laa taqnatu bu leen am manque espoir min rahmatillah mën yërmande yàlla xam nga iblis day nax nit léeg-léeg nga def bàkkaar boo xam danaan é gaan yow kay jaratu ngay tuub yu fii moom yàlla du la ko baal léeg-léeg nga dégg nit day wax loolu mais dañ lay wax ni kaay kaay benn nit ndeysaan nee na ma oustaz man man man jaru may tuub ma ko déet waay mu ne li ma def ci lu bon daa bari ma ne ko déet mu ne man li ma def ci lu bon daa bari man ne ko yàlla da lay nangul tuub mu ne est-ce que yàlla dina ma baal man ne ko ah, yàlla day waxal ko aay bi toogaat ay fan mu woowaat ma ne ndax yàlla dina ma jéggal man ne ko insha allah borom bi li mu wax dafa tëj bàyyiwul daara qul yaa ibadiya alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu bu leen manqué espoir min rahmatillah ci yërmande yàlla lu tax inna allaha yaxfiru zunuba jamia jamian bi moo tax boroom xam-xam yépp kontaan yàlla nee na bakkar yépp en masse inna allaha yaxfiru zunuba jamia ba pare teg ci lan moo tax innahu huwa algafuru rahim kon tuubal boo rayoon cinquante mille personnes tuubal ab jaamu yàllaa ngi nii rey na quatre-vingt-dix personnes am ku mu reyaat muy cent yaakaar naa ni yow àggoo ci loolu mais ba mu demee tuub avant muy tuub waxuma la sax tuubagul yéeneem ci la ko yàlla fay yéene na tuub war a jéggi pikin dem caaro yi ndax ka koy leeral tuub fa la nekk muy dem ci diggu yoon bi mu dee ndax def na jaamu yàlla benn déedéet musul def lu baax rey nit rek la nekkee kon amul dara lu ñu ko yaakaarale mais bi mu gaañoo malaaka mbugal yi daw di ko jël si pour yóbbu jahannam malaaka yërmande yi daw ñoom malaaka yi ñu xëccoo ñii naan ñoo yóbbu ñii ne ñoo yóbbu yàlla yebal benn malaaka mu àtte leen demal nga àtte sama malaaka yi la ci jaam bee malaaka bi ñëw laaj na malaaka lan la ñii ne kii musul jëfal yàlla dara dara dara ci jaamu yàlla dee kon kay safara la war na loolu mooy logique ñii ne déedéet da doon tuubi dee waa ji natt leen fi mu jóge ba fii ak li ko dese ba fi mu jëm fu ci ëpp rek foofu lañ koy atte fu ci ëpp par exemple jóge na Pikine doon dem Thiaroye dem ba jeexal ñetti mbaa xam nga ne presque dugg na caaroy kon war ngaa xam ni léegi àgga yéeneem àgg moo ëpp parce que li mu jéggi bari na gaa yi natt gis ni li ko dese woon bëriwul ñu jël ko yóbbu àjjana kii ndax mos na jaamu yàlla xool leen saxaratu firawn musuñoo dëppal yàlla jë musuñoo julli musuñoo woor musuñoo jaamu yàlla keroog benn baat moo leen yóbbu àjjana benn baat amanna bi rabbi Moussa wa Haroun gëm nañu borom Moussa ak Haroun firawna ne dinaa leen rey dagg seen lépp ñu ne ko faqdi ma anta qaad innama taqdi hadi alhayatu dunia ñun dérangé woo ñu defal lu la ne sa atte fii la yem kaso nga am rey nga am ñun fële la ñu yaakaar xoolal jaamuwuñu yàlla mais yàlla dimbal mais yow da ngaa juum juum nga def nga bàkkaar rey nga nit njaaloo nga loolu lépp bu mu la arrière loo xamal ni montagne yàlla li muy kawe kawe moo gën a nooy ma nooy boo yéegee rek jàll kon inna allaha yaxfiru zunuba jamia xoole hadith bi yonente bi nee na lallaha afraha bi tawbati abdihi yàlla li muy kontaanee ci tuubu jaamam kenn xamul nu mu toll gis nga jaam bi bu defee bakkaar ba ne ba sukk julli ñaari rakka tuub moom li muy tuub ci ay bàkkaaram di tiit yàlla nga ko kontaanee kontaan bu jéggi dayo lallaha afrah bi tawbati abdihi xanaa xamoo buy tuub tuub fa la jaamu yàlla daje parce que imaginel balaa ngaa tuub looy njëkk a def du da tiit mooy jàq nga ci bàkkaar bi nga def ñaareel bi yaakaar nga ni am nga borom bu la mën a jéggal ñetteel bi yaakaar nga ni borom boobu dina la jéggal fa la jaamu yàlla lépp dajaloo kon weeru koor weeru tuub la ci xëdd nag ci journée koor bi ca ndogu ci qiyaamu layl ci taraawiix koor waxtu yépp waxtu ñaan yàlla la waxtu tuub la mbokk yi bokk na ci secret weeru koor ramadan sahru saxaa wal juud weeru koor weeru tabe la tabe tabe ak tàlli weeru koor lañ ko yaakaar gis nga jullit pour mu sellal bakkanam il faut mu génn ci nay borom bi nee na qad aflaha man zakka sell na texe na ñu ne ko kan mu ne ku ku defar bakkanam borom xam-xam ñu ne xam nga lan mooy def bakkan defar bakkan génne joxe du julli bu bari de du woor bu bari de du aj màkka bu bari de mais bakkan li koy defar mooy di génn ci sa poche di joxe ndax joxe dafa metti julli moo gën a yomb joxe woor moo gën a yomb joxe am na gaa yoo xam ni mën na nañoo julli ba seen jëy weex tal waaye boo laajee juróom fukk ñu commencé fuddu parce que joxe benn borom xam-xam suñu benn góor ne sa gaa yi ne nee na joxe ma buddi kawar bakkan ñoo yem. ah imagine nga yor xaalis bu bëri sa jabar nga jox ko 2500 dépense mu toog ba càgg jimbo ji dama yow du nga mën a laaj waay mi ngi fi bëri na lu tax nga nay kon moo tax borom bi ne wa man yuuqa shuhha nafsi fa ulaika humul muflihun nee na ku ñu dimbale ba sa bakkan nayut yaa taxe kon boo buggee àjjana buntu texe mi ngi noonu buntu texe nag mooy mooy doo nay ci sa njaboot doo nay ci sa àndandoo doo nay ci ñi ngay nekkal waaye miskiin yi nga am ci ñoom yërmande loolu day feeñ ndax weeru koor solidarité la pour ñu néew kàttan xanaa xamoo sarax mbokk yi day indi tabe ci xol sarax day may nit équilibre day fay meru yàlla yàlla bu meree sarax rek moo ko mën a moo ko dindi moo ko mën a dindi moo tax jaam ñi bu ñu defee bàkkaar lu bari nañu tuub waaye nañu saraxe boo tiitee ci sa bopp ci say bàkkaar da tiit del saraxe boo tiitee ci sa feebar del saraxe yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na daawu mardaakum bi sadaqa seeni way feebar fajee leen sarax da am feebar bu jaaxal del génn di saraxe da bëgg jabar am jabar amoo doom del saraxe del jéggulu yàlla fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kaana ghaffara yursili sama aleykum midrara kon mbokk yi sarax day dindi meru yàlla ndax lan moo tax yàlla dafa am ay jaamam yoo xam ni munoon na leen a jox mu xañ leen jël ay jaamam jox leen nag di leen seetlu ci ni ndax danañ joxe li yabluwakum ayyukum ahsanu amala waaye bul denc ci kont yi denc ci kër gi di def fu la neex miskin yi taxawaalu nit ñi woo sa kër nar a neex fu nekk gi di tax ji bisaab gi lu ne nga teg sa kër am na miskin boo xam ne café bu mu naan mook ay doomam amuñu ko am na miskin boo xamante ni kilo ceeb bu ñu xëddee amuñu ko yaa axi doo jaamu yàlla ci loolu doo làmb sa poos yonent bi gën a tabe kuy tabe bu weeru koor jotee day fulandi tabeem dootul denc te yonent bi amul woon dara amul woon dara dara lillah waaye weeru koor dañoo seetlu yonent bi day joxe kon nag loolu dalil la ci ni weeru koor dafay defar xol mbokk yi sarax day dindi jàqare de léeg nga dégg yalwaankat yi ne sarax day dindi musiba balaa ak dee bu ñaaw dëgg la de asar yu wér ñëw nañ ci sarax nit dina am lu ko naroon dal mu saraxe yàlla jaar ci sarax boobu ba dimbale ko ci li ko naroon dal ci sarax gi la mun a am boo saraxee nag bul wax ñaanal ma amut benn solo déedéet xam nga sarax jaamu yàlla la tax nga saraxe yàlla xam na ko moo tax Ali ibn Abi Talib bi mu génnee sarax moom ak Fatima gars yi nar a ñaan lu mu leen wax laa la nuridu minkum jazaan wala shukura lu tax inna naxaafu min rabbina yawman qamtarira yawman abuusan qamtarira borom bi tekki fa waqaahum llahu charra dalika leen wa laqaahum nadratan wa surura gis nga boo saraxee sa kanam day bég boo woowee gars yi teg ay lekk ñuy lekk yow yaay njëkk a kontaan yow mi génn sa xol day féex da ngay yëg ne yàlla teraangaal na la xoola xoola lu mel moo tax wa laqaahum nadratan wa surura wa jazaahum bi ma sabaru muñ bi muñ ba joxe borom bi ne wa jazaahum bi ma sabaru jannatan wa xarira kon sarax fexeel imam malik ku néewoon doole la imam malik daa àbb kër ba génn àdduna nit ku ragal yàlla imaamu daaril hijra da daan denc léeg-léeg bu amee dara jël ñaar def ko ci pot pot boobu da koo daf koo bin bindoor xaw ma sadaqat saw ma la ñu waxati doom ji day ba jàng na ko papa yow yaa ngi saraxate amoo mu ne ko weeru koor ñett la siyaamun wa wa sadaqa wa qur'an na lii mooy weeru koor siyaamun wa qiyaamun wa sadaqatun wa qur'an mooy da ngay woor di naafila di saraxe di jàng alquran lii mooy weeru koor siyaam wa qiyaam wa sadaqa wa qur'an xool ko ni mu néewee doole di def loolu kon bul ni man awma du ma joxe déedéet am na loo denc yaa ngi préparé dàll yooyu jënd pour koré gi koré gi ñëwagul yaa ngi préparé yére booy xotti loolu ñëwagul mais am na miskiinu yàlla bu woor amut lu mu lekk kooku boo ko joxee amoon nga bàkkaaru daaw jéeg yàlla jël loolu baadaay la ko sa bàkkaaru daaw jéeg mbokk yi loolu kan moo xam nu mu toll ci ay yiw kon kenn ku nekk ci ñun ne jéem a génne dara dimbalee ko say dëkkandoo mag ñi néew doole xale yi néew doole jirim yaa ngi fii soxna yi ñëpp mbokk yi te sarax day yokk alal saa boo saraxee rek hiya namaa un wa ziyaada saa boo génnee joxe yàlla nee na garanti naan li fi nekk danaa la ko yokkal yonent bi salaa sallam nee na amul benn bis bu ngeen di xëy yéen jaam ni lu dul bu fajar di jot ñaari malaaka ñooy ñëw taxaw ci buntu asamaan kenn ki lu muy wax allahuma aati munfiqan xalafa yàlla kiy joxe dépense këram di dimbale miskin yi yàlla na nga ko wooteel la mu joxe wallahi ladi laa ilaha gayru képp kuy génne di joxe yàlla dana la jox loo joxe amul kuy saraxe ndóol amul fenn amul kuy joxe ñàkk amul fenn moo tax suñu benn góor sëñ da sëñ daara gaañu na da doon wax ni man aw ma kalpe miskin yi ñooy samay kalpe wallahi loolu la doon wax miskin yi mooy ñooy samay kalpe gis nga moom bu defee li muy def li ci des da koy joxe sëñ daara sëñ daara mu ne dina ñëwaat da jékki ba caag mu ne ata kaay leen ñëwaat na de ñu noonu mbiru yàlla noonu la mbokk del joxe yàlla di la jox boo joxee rek yàlla jox la kon mbokk yi am malaaka boo xam lu muy wax allahumma aati mumsikan talafa yàlla ki téye di denc yàqal la muy denc denc ba jàgg jékki benn problème am doo xam xaalis bi lu ko fa yóbbu xëy am ku feebar wala jafe-jafe am mbaa kënku dénkoon lekk ko wala banque ba dem am fayit léegi nag nga far perte toog boo doon saraxe loolu du la dal kon mbokk yi weeru koor weeru izza la fa jeexale weeru izza la weeru teraanga la xam naa ni waxtu wi jeex na buggoon naa dugg ci sirrul itikaaf waaye comme waxtu wi jeex na dañ koy tënk ba beneen yoon mbokk yi weeru koor julli ñi ci la ñuy amee teraanga buy ëpp nag xoola weeru koor bu jotee ni ngay sawaree sa temps ni muy bëree sa xel ni muy nekkee ci jàng alxuraan ni ngay nekkee ci koor ni ngay soppee nit ñi ni ngay demee jàkka ni ngay dégloo conférence ni ngay dégloo tafsir sa lépp dafa ubbeeku pour islaam rajo yi tuub télé yi tuub foo tourné yàlla yàlla yàlla yàlla ñëpp dañuy nekk ay jul kon mbokk yi weeru koor weer wu ama am solo la kon noo ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala ñëwuk weeru wii yàlla ñu fekk yàlla jéggal ñu sunu yàlla jéggalee yàlla nañu yàlla yóbbu àjjana yàlla nañu yàlla defal nasru defal ñu tawfiq defal ñu yusru waaye defal ko mboolem jullit mbokk yi weeru koor wi nag incha allah amuñ ci lu dul woor ak jaamu yàlla ak topp yàlla loolu ñu ci am nag loolu rek la ñu am ci kaw suuf am na ñu fi newoon daaw fekkewuñ ko yàlla leen yàlla yërëm am na ci ñun ñu fiy nekk déwén duñ ko fekkee yal na leen yàlla jéggal yërëm leen balaa booba am na ñu fi feebar yal na yàlla saafara leen ñi ñàkk yal na yàlla jox leen ñi bëgg soxna yal na yàlla jox leen waaye yal na yàlla dëgëral ñu ci jaamu ko yal na yàlla saxal ñu ci ñu jaamu ko yal nañu yàlla boole ci ibadur rahman ya nga xam ni moom moo leen tànnal boppam moom yàlla yal nañ ci yàlla boole suy weeru koor wi jeex yal na fekk yàlla jéggal ñu suñuy bàkkaar defal ñu teraanga defal ñu yiw incha allah fii tey la ñuy yemalee dars bi ba koor gi jeex su koor gi jeexaatee ñu ñëwaat incha allah continuer jëmm yi ñooy sore mais xol yi incha allah danañu ànd ndax suñu jëf du dara lu dul bëgg yàlla yërëm ñu yàlla nañu yàlla yërëm ñiy wax ak ñiy déglu ñëpp yàlla na yàlla jéggal leen yàlla na yàlla defal ñu àjjana yàlla na yàlla jéggal ñu yàlla na yàlla may ñu xam-xam bu wér yàlla na yàlla may ñu jëfee bu mu nangu yàlla na yàlla may ñu ñu dëppoo ak sunna waaye maa ngi leen di fàttali ne dama ko daan wax at mu nekk at mu nekk mooy day am ay nit ñu dëkk ci dëkku àll yi di sàkku ñun suñuy teewaay foofu ak di leen defal ay ndogu mbokk yi maa ngi leen di woo bépp jullit bu mënte yàlla tax jaamul yàlla ci bunt boobu ay miskin la yu nekk ci dëkku àll yi projet boobu maa ngi ko tuddee woon projet yoonu àjjana projet yoonu àjjana nga xamante ne yëkkati benn cinquante mille wala benn cent mille dimbalee ko say mbokk ñu daje ci jàkka def fa seeni iftaar waxtaan fa seen wàllu diine jàngee fa seen diine bunt bi ñu bëri duggee nañ ci sunna ci kàttanu yàlla bunt bi ñu bëri duggee nañ ci sunna kon maa ngi leen koy fàttali ku xam ku am lu mu dimbalee fal baabu maftuux yal na yàlla jéggal ñu wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.